jaja fay sama gaay ñi ngi ziar ma ganda mo tite ro di len bege yeneen si jamm amee cool tranquille na dama ñëw nak di len la Juan Juan lay wër Juan Branco sama gaay do fi yag do fi yàq dama ñëw rek di len laaj Juan Branco ana Juan Branco Juan Branco Mola Branco ñëw na sama doomu nday lay wër Juan Branco gars yi waral leen ma Juan Branco anam mi ngi rëbasan ana jubilateur yi ñi den jubilé di yuuxu naan jàpp nañ Juan jàpp nañ Juan ma leen ko xool Juan de du fa yàgg du fa yàq Juan du doomu baadoo la de <laughs> Juan Juan du doomu baadoo la laay lay la laa day bay du pasti Juan Juan du la ak di doomu baadoo la daa mun a daa mun a Juan Juan euh, Euh, di espagnol di français ah yor ay nationalité yu dëgër këcc Macky Sall pour mu crédible sax ba Amérique la demoon wuti ji fa këyit demoon fa baari ñinde fa la amee këyit dëkk jabaram dugal loterie Macky Sall day jabaram loterie nationale la dugal bu Fra bu Amérique pour am fa këyit woolu jëkkër ji jëkkër ji ñëw fa di yanu ay pneu di charger ay conteneur ba am fay kayit moom tamit ah day bay du passé nag xuwaan xuwaan yor rougeole passeport rougeole de variole rougeole yooyu noonu passeport euh, kii baadoo la rougeole ak variole <laughs> passeport bu xonk boobu noonu rougeole yi <laughs> non xuwaan yor rougeole <laughs> yor variole biir bu tàññi biir bu daw e a leen ma xuwaan ana branco xuwaan branco doomu nday moola branco ñun de gars yi mënuluñ ñu dara Juan mënuluñ ko dara Juan Branco ak Mola Branco ñoo moom dañ leen di teewum ah, kon nuñ jàppee Juan ah Juan tàng na de Juan day Juan ñu gën day moom dañuy ñëw jàpp ko samedi dugal ko kaso dimanche dugal ko avion leen Juan nag ak réew Juan naan leen non j'ai pas du ma nee na business class ma ne Juan yaa réew Juan de business class la mujjee dugg nee dugg géttu bay Juan Juan Royal Air Maroc la ñëwé kurti kurti ba dugg ci biir Juan bu muy génn ne dugg Air Senegal, Air France la ay dugg noomu doomu la doomu Branco bandi business class euh, Air France non non non non non non je prends pas Air Sénégal c'est la merde Air Sénégal c'est la merde Air France ba gars yi wutal ko Air France business class xawaan tegalee tànkam gars yi indil ko jus yi muy naan chetet di wokk bopp bi ma ne xawaan yaa xawaan yaa baax ndey yaa baax bàyyi chetet ay waay xawaan Branco waaye dem na waay ay waay xawaan Branco toj na réew mu génn dem yoonam ay waay xawaan <laughs> non xawaan du mba xawaan ay bandi gars yi naan ay mandataire international xawaan ñëw ci dëkk bu dugg ne leen salaamaaleykum maa ngi nii bett ñëpp conférence de presse toog yëngal bopp bi toj foofu menacé <laughs> xoo nekk ci biir temps bi di taxawaalu vum vum xoo nekk fii jël gaal romb <coughs> romb leen ba egg Rosso Mauritanie ñu doog koo jàpp xooaan génn xoola ñuy yuuxu sibilee kii ñëw lu lu tëdd euh, Antoine ñàkk jom ñëw toog ba assemblée nationale naa on a attrapé xooaan waa bip ñoo ko jàpp rek waa dëkk bi di tàccu kàcce kàcce kàcce di tàccu deux minutes <laughs> ma ne leen dee de ki ngeen jàpp doomu gaynde la <laughs> du doomu bukki doomu gaynde la da nga koy delloo doomu gaynde doo ko lekk doo ko warax doo ko won ne da koy delloo ndeyam yii moo tax man leen du fa yàgg du fa yàq doomu gaynde ngeen jàpp signeel bu fekkoon doomu signeel la waaw ah, mun na fa yàgg bu fekkoon doomu kuttu mbaasaan la mun na fa yàgg mais kii doomu gaynde la dellool dellool dellool kii kay doomu gaynde ku ko àbb delloo ko moo taxit Macky delloo leen doomu gaynde ga la lendemain Juan moo bon Juan la féroce bàyyi leen sànni leen seen passeport yooyu te ngeen dem wuti passeport international yi billahi tant que yéen a ngi yore seen ruusal yooyu seen variol yooyu dinañ leen faray dinañ leen faray de yooyu passeport yooyu man de gën gëj naa cee man gëj naa yal na ma yàlla muccal te musal ma passeport variole ak rougeole <laughs> Antoine mu doon duul toog assemblée nationale jàpp nañ waan jàpp moo mu doon bu ndaw bi moo toog di fooye euh, Antoine quoi non Antoine non Antoine assemblée nationale non man nag man jambar la nak man gars dañ ma jox cër boy bu ndaw bi nëkk fi ba Canada di yëngal assemblée nationale boy Antoine ñak jom tok assemblée nationale di ma tontu barki 17 millions de sénégalais man la Antoine ñak jom tontu no vraiment nak boy man war war ngeen ma sumil nit ma ñew portable bi gis ni dañ doon jema ray Serigne Cheikh salou wax ci Serigne Cheikh salou ak nu Antoine bëggoon def Antoine ñëw assemblée nationale bugg a woon ñëpp ni Serigne Cheikh Saliou sëriñam la gaynam la waaye loolu pour tontu ma ndeysaan Serigne Cheikh Saliou sax doomam euh, mus nañ toog ci euh, euh, tëm di waxtaan moom Serigne Cheikh Saliou doomam mun naan ma Antoine lu tax mënoo wone sa mbëggeel ak nu la Serigne Saliou doon def waaye bëgguma woon wax si man sax waaye dinaa wax quoi parce que xam naa ne Mollah Morgun wax naa man bëggumaa jaxase donc foog ma wuyu ko mooy buy wax waxu Café Touba naan Serigne Cheikh Saliou doomam. dañ doon waxtaan mu ne ma Antoine des fois da ngay wane da war a di wan won sénégalais yi ah, ah, fi nga toll Serigne Cheikh Saliou ah, fi nga tolloon Serigne Saliou ba doomu Serigne Cheikh Saliou fekk xoolal man maa leen wax portable ba Serigne Cheikh Saliou empoisonnement ba mu bu ko tontu nag bu woon won ma bu ko won tóoni bu ma won ni moo laa man Serigne Cheikh Saliou xam naa xam naa doomam ay gaayen lañ yooyu muy doon wax yooyu kenn santu ko ko kenn santu ko ko woon mënoon na ñàkk mais loolu yëpp man la doon tontu 17 millions man la ñuy tontu yabuñu ma nag. dégg dégg lu ma leen di wax joxoon naa leen exemple boobu nee naa leen billaay man ku ma la ma yab ku ma xamul mais sama rëkk rëkk rëng samay rëkk gaa yabuñu ma dee ay autorités yi ñuy wax ne ay kilifa lañ ku ci gis ku ma ci gis day ku ma ci gis day sotu ba yabu ñu ma barke alxuraan seen bàyyi laa boo demee ci ñoom sax ne leen moolaa sama gaañ dañ lay xoolaate bët ah da nga xam moolaa sérieusement da nga xam moolaa ñu ñu dem di Antoine ci boppam ki ma xam dem ci moom ne ko moolaa sama booy la ñetti yoon Antoine laaj na ko ah boo da nga xam Mollah man man Mollah daf may saaga rek man Mollah Mollah daf may saaga rek man daf ma ko da ko xulli bët <laughs> gëmeewu <laughs> bi ne ma booy yow eh, traumatisé nga ñii de ah, ma ko ah mën a ko sama booy nga laajte yoon ah da nga xam ah, <laughs> ko doon dànk bi na ko sama booy ah, daf may saaga rek. lu ne la may wax grand bi di ma wan ne booy bàyyil bàyyil Antoine waaye keroog maa ngay wax say wax muy xulli bëri gars yi gëmewu ko sax na ko sama booy nga gars yi dama leen doon rek sondal naa ne Antoine toog ba assemblée nationale di ma tontu non man nag ba am naa valeur nag réew mii ponkal laa ci nag billaay wallaay loolu yàllaa ko def réew mii ponkal laa ci de xawma ku ñu yàpp mais man bokk bokk ma ci gisoo dañuy toog ci ay plateau bu ko wax Mollah Morgun mënuñu wax Mollah Morgun ñuy wiiri <laughs> kon Seneweb buñ toogee ci plateau yi na gis nañ portable am na photo buñ gis gis nañ portable am na ku ko génne na est ce que moom la ah am na ko génne de man mi maa fi génne photo portable bi <laughs> mais ñi muñ wax sama tur <laughs> plateau bi fees dal ki dul naa liste kenn di xool sama morom naat ah ku fi waxtu rom deere dafa dofte te da rey de <laughs> day wër say juróom-ñaari maam say toj-toju maam lépp fu ñu tojoon daf fay jaar dafa dof de détecteur la détecteur privé la day day loqati say say sile bu nday lay génne say stringu nday say belefete bàyyi lay génne laa la wax di ko fóot ci digg ci digg askan wi moytu leen ko def moo tax bu ñuy wax ñi muy wax moo laa de ku nekk di xool sa morom naa wuy euh, en tout cas am na ku ko génne laal am na ku ko génne <laughs> kan moo ko génne ko dul man <laughs> rek waa na ko non kon nañ nag ma dajee ko def yaay yooy oy oy oy sama man moo laa man xaw ma lan laa nu ma cikkilee nu ma tuuti tuuti man maa man comme tuuti galaxtaan la man fu ne kon melentaan comme melentaan mais nag mattu melentaan laa yow <laughs> man boo duggee ci man sa stringu ndey laay loqati laa la wax damay daj ji seen buntu kër seen biir kër dugg ci biir génn sa stringu ndey ak sa bele fete baay xoolal indi saabu saabu saabu kii bërngal yii fóot ko ba mu set wecc wecc weer ko ku romb ma ne la kii de sringu ndayu Antoine la ah waaw kay gis ni lu mu day bele kii de caaya baayam la mi ngi nii <laughs> maa ko doon fóot mu fees del sumb bu ñuul ko <laughs> moo tax yabuñu ma tey moo tax Antoine toog ba assemblée nationale di tonton teeg man bugg maa ne moo laa man sëñ Cheikh Sall sama sëriñ la doomam sama xarit la hmm, man ku ma yab waaw billaay dama laa sori fu ma yab dama laa sori rien yenn fina non mo la ya newon ya newon ne woon xuwaan dugg bato man man kay ben way waaye wax na ma ko soxna ma ne ko waa léegi man mo la samay wax ay douli mousla wa dama la non xwan du fa taxaw du fa yak du fa yak amna wala amul non da nga newon duguna ci bato ma yena yéen a dama ne probablement normalement xwan ci heure bi war nako ko fekk ci bato yéen bu may wax lol ken xamul ni xwan ci ndox mi la jaar kon kay man léegi nan la def xamni xwan ci ndox mi